bu ñoo bokk ndey ak baay Sénégal koo gis sa mbokk la waaw koo gis rek mbokk la donc c'est nu entre nu nañ leen waxtaan diisoo jàmmoo vraiment ndax loolu rek moom moo xëj Sénégal ci lool daal la ñuy woote moo tax ñu ne la cohésion sociale tey bu loolu weesoo nag ñu ngi encore euh, rendre hommage un de nos bu fi nekkoon Mbaye Diallo mu wàññeeku di ñaan yàlla yan na ko yàlla xare àjjana di remercier aussi sa famille bi nga xam ne ñu ngi fi teew di ko ñaanal yàlla daal yan na ko yàlla yërëm mu xippee àjjana fi dax tey dañu ñëw wuy si suñu kenn koo xam ni kenn la si ñun muy clubu Médina Gounass bi nga xam ni moom dafa am benn club bu dynamique dirigé par Adam Thior benn jigéen bi mu koy woowee jigéen bu mën góor jigéen bu nga xam ni wax dëgg yàlla bokk na si rare présidente de club yoo xam ni ici à ñoom ñooy diriger club randonnée ku xam club randonnée am na ay góor am na ay mag am na ay ndaw mais wax dëgg yàlla ni mu téye club randonnée bi dañ ko si naw di ko féliciter di wax président yi ak président yi jël leen exemple si Adam Thior ni muy manager club bi club bu nga xam ne vraiment day boole ñëpp balaa muy jël décision dugal si ñëpp loolu aussi dafa nekk lu nga xam ne lu rafet lu ñuy lu beneen thème bi mooy cohésion sociale maanaam ñun nekkin bi ñuy nekkee entre ñun si euh, randonnée yi ñu xam ne que bi du dox kese randonnée bi du santé kese parce que wér-gu-yaram daf koy yokk waaye li gën a am importance si randonnée mooy saafonte bi ñu saafonte mooy xamante bi ñu xamante mooy yokk xalaat bi ñuy euh, échange de xalaat bi ñuy bi ñuy yoxlante loolu yëpp ñu tuddee ko cohésion sociale maanaam nekkin bi ñu nakk nii ni ñu mën a jëriñante ñun en tant que nit en tant qu'individu loolu moo am solo xiiroo be ŋaay bi daf fi bëri comme ni nga ko waxee ñu ngi jëm vers des élections ñun dañu woo ñëpp ñu ni lan moo ñu boole mooy Sénégal la ñu bokk ñun ñëpp malgré que ku si nekk am nga sa ay ambition maanaam am nga bëgg-bëgg boo bëgg boo bëgg foo bëgg jëm mais nañu delloo si xel yi xam ni que quelque que soit Alpha quel que ku ñuy jël président ëllëg day xam ni que Sénégal moo fi nekk.